Euh, quartier général wala exposition bi nga xam ne moom la Touba ca kanam di def muy première Touba ca kanam bi mu sosoog léegi mi ngi doog a def lu mel nii kon boo déplacé woo ñëw seet si Touba ca kanam ci njiital Serigne Abibou <clears throat> Touba ca kanam bi dina ci am mbégte sant la ci tànk yooyu gërëm la ci teew gi nga teew fii dinañ amaat mbégte tamit ci leerale la liggéey bi nga xam ne Touba ci kanam mi ngi koy def ngir wàccuwaay wi nga xam ne moom la yàlla dogal nga am ko ci réew mi boo xamee liggéeyu Touba ca kanam boobu dina tax Touba ca kanam mën a jaare ci ci yow ak ci li nga xam ne moom la la président de la république dénk ngir lépp loo xam ne mën nga koo jàppalanteeg ñoom ci li ñuy def te lépp delluwaat ci liggéeyal Serigne Touba ci Touba. te mu mel ne bi ngay ñëw léegi sëriñ bu def ne ministre Abdou Karim Fofana mi ngi fiy ñëw waaye dafay ñëw en tant que mbokkum taalibe muy ñëw di seet si liggéeyu Touba ca kanam fas yéene ci bi bokk ci dafa mel ne loolu la ñuy wax léegi kon loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax di la ci jaajëfal ndax it Touba kanam moom loolu rek la bëgg mooy bu ñu sañoon li ñu bëgg te mooy fexe ba am 2 millions de murit weer wu dee kenn ku nekk joxe ñaar téeméer ñu liggéey la ko sëriñ bi ci dëkk bi kon jamono bu ci nekk rek jamono bu nekk rek ku dolliku mbégte lay doon ndax dañuy xam ne ñi ngi dox jëm ci fi ñu jëm objectif bi ñuy visé ñi ngi dox jëm ci te bu ci yàlla bu ci yàlla àndee balaa yàgg dinañ ci àgg kon sëñ bi ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax bismillah ci Touba ca kanam bismillah ci liggéeyal sëriñ Touba bismillah ci takktoo boole doole yi ngir xam nañ ne loolu rek moo mën a saafara li ñu bëgg te loolu mooy li Serigne Touba jàngale woon. di leen yi yéen ñi nga xam ne yéen a yor kuréel bi ñuy wax tuubaa ca kanam tuubaa ca kanam nag balaa ma ci egg si damay wax rek li ma doon nettali sëñ bi sànq ne dama am mbokk taalibe bu baax bu tudd Talla Gueye nekk jëwriñu sëñ bi Sowar bu xaar at mu jot rek dana jaar sama kër uh, andi ticket yi rek dama damaa jël ci cotisation ko defee ñu dagg waa kër gi yëpp jox ko. te boobu ba léegi mosuma xam sëñ Abibu nii la ci demee xam naa sax bëggul ko wax waaye ñu ngi daje màggalu Daaru Xudóos ma koy tooñ nar ko waa sëñ bi tubaa sa kanam moom lan nga ci doon ak nangam ak nangam mu sëgg rek def ni mu def ci téere bi ci lay door a xam ne mën na am lu ci bëri ci moom la ko sëñ bi jaarale ñu ngi leen di sant ci initiative bii nga xam ne lu am solo la ci réew mi ndaxte damay bi ma toogee ba léegi maa ngi xool mbind yi Euh, naatal Touba ndoxu taw yi leeral tuubaa njàng mi euh, waaw ndoxum dimbalante wér-gu-yaram ak setal Touba daanaka waaw daanaka loolu boo ko defee ci réew rek dara desatu ci te sëñ bi jamono ji réew yi li ñuy gënante du am pétrole ak am nàngam ak am nàngam déedéet li ñuy gënalante mooy li ñuy wax développement durable développement durable mooy nekkin bu sax nekkin bu sax noo koy amee mooy aar sa environnement fexe nit ñi di jàng di xam fexe nit ñi di am wér-gu-yaram fexe dëkkuwaay bi set fexe ba booy leeral dëkk bi it nga leeralee ko ci noo xam ne ci solaire lay jógee mooy li ñuy wax énergie renouvelable ak def ay gàncax ba nga xam ne climat bi du gaañ nit ñi loolu nag dafa mel ni sëñ bi yàgg na koo xam ba tax lii ma gis ngeen def ko muy seen mbàkk wajal ilaahi maskani tuba abat mislas miha bi jaayi xayri man abat bi ne ci matlabul fawzeyni loolu nag ñu leen ciy sant bu baax a baax a baax ndaxte man yàlla dafa def programme yi ñu ma dénk dafa làmboog li ngeen di liggéey euh, président Macky Sall bi ñu koy falaat mille 2019 dafa am loo xam ne moom rek moo ko génnewoon ci candidat yi mooy seetlu bu mu def ne réew mi mel na ni bés bu ne nee nañ li muy perte ci ay garab toll na ni ñeent fukk ci ay terrain football maanaam terrain football bu ne rek boo ko jàppee ñaari hectare boo seetloo buñ la nee ñeent fukk ci terrain football dafa mel nii danga nga ne rek quatre-vingts hectares ci ay garab ci ay gàncax la Sénégal di perte loolu nag ñi mel ni yéen xam ko teel ko ràññee di ci dox di ci wax ba tax ngeen di def loolu ngeen di def muy reboisement wu Touba ak yeneen ak yeneen leneen li it mooy solidarité ak nangu développement ndaxte nag dëkk yi nga gis yëpp ci àdduna bi même dëkku tubaab yi bëri na loo xam ne xaaratuñ ci état xaaratuñ ci état boo demee ci dëkk yi gën a mag ci àdduna bi communauté yi association yi ku ci ne da xool li manqué te li nga xam ne mën na am état mënagu ko def wala état àggagu ci ñun nag. bu weesoo li ñu doon ay sénégalais dañu doon ay murit te am lu sëñ Tuubaa namm ci dëkkam te ñuy xëccoo mën na am yiw wala bëgg cee barkeelu looloo tax lii ngeen def mu doon lu am solo loo xamante ne Sénégal yëpp war nañ ko jàng dëkk bu ne organisé wu ba nga xam ne ndox daf fay gën a yomb assainissement gën fa yomb wér wér-gu-yaram gën fa yomb njàng gën fa yomb donc loolu moom mooy pas-pas bi nga xamante ne am na bi ñu yónnee ñetti téeméeru garab yi nga xam ne sëñ bi moom lay barkeeloo woon ci liggéey bi bi ñu ko waxee président de la république dafa ne ah loolu kat dëppoon nag man li ma bëgg ba créer agence de reforestation du Sénégal dénk ko kooku ñuy wax Ali daar boo leen ko seetloo démb ci télé bi la jël service nga xam ne président dafa ne rek ni ñu defoon ba am ay agence de sécu ay agent de sécurité de proximité nañ fexe ba am ay agent yoo xamante ne loolu rek la ñuy toppatoo commune ñu def ñoo xam ne dañuy wër rek di saxal garab yi di leen toppatoo ndaxte bokk na ci li nga xam ne nee nañ àdduna bu doon tas ëllëg bokk na ci li koy tas suuf ak mbiru gàncax dem nañ ba am na dëkk yoo xam ne dañuy luye ji suuf ngir am euh, ay pepp yu ñu mën a yóbbu seen dëkk fi mu ne nii boo demee Qatar ak yooyu dañuy dem ay Australie ak yeneen dëkk di fa luye ay suuf ngir di fa bay di yóbbu seen dëkk waxatuma ak am gàncax yu mel nii donc lii moom pas-pas bu mag la te di leen wax ne ministère bi nga xam ne moom lañ yor bëgg na ci ànd ak yéen ndaxte luy defar Touba luy defar Sénégal la te ñaareel ba dafa doon exemple boo xam ne dañ ko war a wane fépp bi ñu ko waxee président dafa ne nañ leen yokkal junni ci ay garab bëggoon nañ ko andi ci màggal gi waaye dañ doon ragal xat-xatu organisation bi ba mu ne nañ ko jàllale ba jox ci yeneen dëkku diine yi ku ci ne roy lii nga xam ne moom la Touba ca kanam di def leneen li tamit mooy mbiru mbalit yi mbalit bi euh, maa ngi ci waxtaan ak waa UCG rek balaa màggal gi jàpp naa ne problème mu matériel am na waaye bëri na loo xam ne Euh, problème mu sensibilisation maanaam yaraat nit ñi ci nit ñi def ak mbalit yi boo demee ci dëkku tubaab yi sànq rek maa ngi koy wax sëñ Abibu nee naa ko soññe yi Touba ca kanam di def di def yenn saa dama ciy tombe ci YouTube am na ci koo xam ne dafay taxaw ci digg tali bi Europe naan ñii nga xam ne du ñuy jullit gis ngeen seen mbedd yi ni ñu mel ni mu setee ni mu rafetee ndax loolu daf ñoo jom dama koy wax sama service yi ne leen tubaab yi ni ñuy takkee seen i mbalit ba mu jekk taxaw ci buntu kër gi dugal ko ci poubelle xaar ba waxtu oto bi ñëw ñu door ko génne ndax ñun daf ñoo joom waaye dama jàpp ne ci suñu réew mi dañ ko leeralul nit ñi ndax du suñu aada te loolu nag bëgg naa ñu liggéey ci bëgg naa Touba doon ci dëkk yi nga xam ne ñoo njëkk ci loolu maanaam waa UCG di leen wax ban waxtu la camion mbalit yi di ñëw nit ñi ñu def ay campagne de sensibilisation yu mel noonu wax leen ne mbalit nii lañ koy fase ci biir kër waxtu sàngam lañ ko war a génnee ndaxte nit ñi ku leen yee rek ñu yeewu loolu daal mooy kàddu yi ma bëggoon euh, sànni ko fi sëñ sànni ci bu baax a baax a baax te xam ne lii ngeen def moom xam naa dugg na rek ci Touba li abdil muridin saadixin euh, loxumoo bi xidmatil aw bi xubil aw haadiyaati xam naa ne diggante liggéey ak bëgg bi nga xam ne moo tënku ci bi xidmatil ak aw bi xubil moom yàlla def na ko fi dañu ñaan yàlla mu boole ñu ci Pastef boobu ba nga xam ne dinañ ànd ci liggéey bi ba nga xam ne daal lépp loo leen ciy liggéey yëkkati rek boo leen ñu ko waxee ci ministère bi lu ñu ci am mu rëy mu ndaw dinañ ko ci def barkeeloo ci ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax te di leen andil cant ak euh, encouragement président de la république asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.